bismillahi irrahmani irrahim wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki daaray majaalisu Ihyaul Ulum desuwaat nañ ci daara ji niñ koy baaxoo di ànd ak ci sunu jataay yi ñuy amal muy waxtaane dundu Sëriñ Tuuba ci majaalisu Ihyaul Ulum ngeen di ci ànd ak seen mbokkum daara Maam Mor Dramé fii ci Touba Daaru Xuddus numéro téléphone bi di 77 617 89 ngir ñu bëgg a ci daara ji ànd ak ñun ci liggéey bi lu toll tam ci sunu juróom-ñeenteelu audio ma fàttali ne waxtaan wi dañ koy tënk ci ay audio yu gàtt nga xam ne du weesu fukki minit ak ñaar. gën ga bari mbaa daf ñuy tegalit lu néew lay doon ngir ñi nga xamné dañuy bëgg di top waxtaan wi déglu gi gën di yomb ci ñoom ndax audio yi amna na nu muy guddé rek du neex a déglu eh, kon ñu ngi tollu won ci juroom ñeenteelu audio bi Don ci waxtaanee itam ganeeg jamonoog sëriñ bi ginnaaw bu ñu waxtaanee cosaan yi nga xam ne ni ci la ko yàlla boole muy askanu mbàkke ak askanu mbusoobe naka jekk ni ñu meloon ci diine lislaam lu jiitu sëriñ bi di feeñ jamono loola leeral lañ ko ci oyo yu weesu Euh, leeral nañ itam ak gane jamonoom ak wuute yi nga xam ne ni am na ci audio bii ñu defoon barki démb leeraloon nañ ci ne sëriñ bi dat yi ñu joxe ne ci la gane jamono dafa bari waaye ñaar yi nga xam ne ni mooy yi ci gën a jege te gën a wér ci ñun mooy 1854 ci ati tubaab yi wala 1855 ñii 1855 ci lañ dëppoo ñii 1854 ci lañ dëppoo waaye ñaari dat yëpp indi nañ ko ñi wax nag ne 1854 la ak ñi wax ne 1855 la kenn ku ne am nga ay dalil waaye bu dee ci ati hijriye yi moi 1270 1270 nak mo gëna jégué ak 1854 kon j'en ai 1854 la ñom jégué nañ ak ñi wax né 1270 la ndax 1270 ci gadda yu gënëntu bi la muy ati julit yi bu dé 1854 nak ci juddu yent yalla la muy li ñu wax tuba bi ba euh, demee ci rawdu sax wax nañ ne le 13 mai 1854 la waaye nag wuute yi nga xam ne dafay wuute léeg-léeg ci dat yi solo si bariwul li am solo rek mooy kenn ku ci nekk lam wax gannaaw teg na ko ci ay dalil boo ci jël rek mën nga caa sukkandiku ndax histoire moom ñaare day bëri léeg-léeg ay wute leeraloon nañ itam barab bi mu gënee jamono loolu moom amul wutee mooy ci Mbàkke Bawal Mbàkke Bawal nag dëkk la boo xam ne mi ngi ci wetu Touba sorewul ak Touba digganteem ak Touba xam naa ci juróom-ñaari kilomètre wala juróom-ñett gën ngaa bari ci lay toll maamam tam ju ñuy tuddee maam Maxaram Mbàkke moo ko sancoon nga xam ne ni buur bu ñuy wax am bëri ngoone sabel moo ko ko daggaloon loolu yi leeraloon naa ko ci waxtaan wala weer maam Maxaram moomu nag moo jur ku ñuy wax maam Habibullahi mooy am caatam maam Habibullahi moomu moo jur ku ñuy wax maam Mor Anta Sali maam Mor Anta Sali moomu nag moo jur Cheikhul Xadim radiyallahu taala anhum loolu it leeraloon naa ko ci waxtaan yee weesu Euh, naka noonu way juróomu jigéen itam moo di euh, sayidatu jaaratullaahi Mariama Buso ñu gën ko xam ci maam jaara ñun wolof yi waaye Mariama Buso mooy aw turam ak santam ndax ñu ngi ko tuddee sayyidatuna Mariama mu mag ma soxna Mariama Buso moomu ku ñuy wax Ahmadou Cheikhu Buso mooy waajuram Ahmadou Cheikh Bousso moom ku ñuy wax Mouhamad Tabara mooy waajuram kooku itam ibnu xam doomi Hamad Hamad ibnu Ali noonu nga koy toppee ba ca sayyidatuna Fatimatu bintu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon gis nga sëñ Tuubaa ñaari càllalaam yëpp muy càllala kër ndeyam muy waa eh, kër càllala kër ndeyam muy ak càllala kër baayam muy waa Mbàkke seen askan yëpp dañuy dajewaat ci maam Maharam Mbacke wéy nag di wéy ba ca Fatimatu bintu Rasul ndax sayyidatuna Maryama mii di woy juróom soxna Assu waalo mi nga xam ne nii moo jur sayyidatuna Maryama soxna Assu waalo Mbacke la moom itam boo toppee ak yàlla daal day delluwaat ci maam Maharam ñu wéy nag ba ci yonent bi saa kon sëriñ bi sërif la ci ndey sërif la ci baay Iya yépp nag wàccaay yu ko yàlla waajal la lu jiitu muy ñëw ñu ngi toll woon tam kon ci fi nga xamee ne fi la sëñ bi doon war a dalee am bi mu tolloo ci jàng nañ itam sax la xewoon ca bi mu gën a xew-xew yi ca xew ba ni mu matee dal jàng loolu leeraloon naa ko ca waxtaan wala weesu dama koy fàttali fàttaliwaat rek nga bàyyi ko xel boo delluwaatee ci waxtaan yooyu di mu matee dal jàng nag dañ koo jox maamam ju ñuy tuddee tafsir Mbàkke Ndumbe nga xam ne nijaay la ci woy juróom wu jigéen muy Soxna Jaara ndax tafsir Mbàkke Ndumbe càmmeñ la ci. maamam soxna aswaalo maamam jooju nag moo ko jàngal alquran ba mu toll la tajidanna asadan naasi adaawatan Yuusuf jooju maamam daal di wàcc liggéey mu delluwaat nag ci loxoy waajuram muy sëriñ Mor Anta Sali te leeraloon naa ne sëñ Mor Anta Sali mi waajuram jàngalekatu alxuraan la woon yor daara ju mag di jàngale mbooleem xeeti fànni xam-xam yi léegi delluwaat na ci kon ci ay loxoom wéyalee fa alxuraanam ak xam-xamam ba ubbeeku ci maamam ju ñuy euh, xawma nijaayam tam joo xam ne ñu ngi ko doon tuddee sëriñ Bosoobe bokk ak soxna jaara mi wéy kon nijaayam la lenq jàngal na ko lu bari ci xam-xam Eh, jaar na itam ci maamam bi ñu tuddee sàmba tukkulóor ka nee nañ nijaay la ci maam moor antasali kon maam la ci moom maam moor antasali moomu nag nga xam ne ni bim mu mënee alxuraan ak xam-xam ba jógee ci loxom dem ci serigne bu soobe jógee fa dem ci sambatu ko lorka teewul jaarat na tam ci yeneen borom xam ku melni ni xaalima jaxate kala nga xam ne ba xam la bu won nekkon na tango nekkon xarit ci Mamour ande salim mom jaar na ci rawati na xam-xam bi ñu tuddee xam-xamu nga xam ni day tax nit ki mëna way xam wayini xam bu xawr yi muy baxar géej yi nga xam ne nii wala nattukaay yi nga xam ne nii ci la ñuy nattee euh, aw wayin yooyu yëpp doon na ko jëlee ci xaadima jaxate kala am na itam ku wax Muhammad ibnu Muhammad al al Fadli ad nga xam ne borom xam bu mag la bu dëkkoon ca Mauritanie waaye dafa féete woon ci dëkk bu ñuy wax Njaañ ci boori Louga moom it daan na fa dem di jël ci moom xam-xam yu bare bare bari rawatina lu mel ni xam-xamu mantiq ak bayaan ak usul nga xam ne ni yii day tax nit ki su bëggee way wala mu bëgg a taalif loolu jàppandi ci moom kon gis nga sëriñ bi ni ko yàlla waajalee ngir lim def ci moom moo war a nekk kuy xettali jaam ni àdduna ak alaxira ba tax lépp luy jumtuwaay rek suñ borom subhanahu wa taala daf ko koo baaxee tàmbale ko ci tànnal ko askan yu baax jox ko ay wéyjur yu baax mu ganee jamono ci kër goo xam ne ni kër gu ak xam-xam alxuraan am xam-xam mboolem kàngam yi fi nekkoon itam tàmbale ko ci wéyjuram boobu muy Sëriñ Mor Anta Sali Tafsir Mbàkki Ndumbe mi maamam te jàngal ko alxuraan serigne bu soobi mi nijaayam sàmbatu kuloor ka di mam ci xari ma jaxate kala boba ñi ñoy kàngam yi nga xamanteni ni kenn mënta tudd alxuraan xam-xam ci réew mi tudd leen tudd mu jaar ci ñii ngacc lañ yoroon ci xam-xam ba fess del del del. boole nag li ko suñ borom subhanahu wa taala may ci ay may bopam bi nga xamé nak ne am njàngam matna ci loxol dafa daal nak tàmbali euh, bi nga xamee ne am njàngam mat na dafa daal desiwaat na ci loxol way juróom sëñ ma antasali di ko jàppale nag ci daara ji loolu nag tax li ëpp ci dongay daara ji taamu mu di leen jàngal ngir làmmiñam wu set ak pédagogie bu mu yor ci wàllu tëralinu am njàngale ak yeewu ci ak xereñ ci te kom jàngal lim la jàngal da nga koy dégg te doo ko fàtte ndax dañ ne maam Mor Anta Sali jàngalekat la woon waaye dafa xawoon a bar bar googu sax leen ni ci sunu bakki bakki bakki yu bari nuru nañ ko ko bar googu nag taxoon na bu la jàngalee ñaare dana am baat yoo xam ne nii da ko ko bëgg a laajaat waaye doo ko ko ñemee laaj loolu nag moo taxoon yàlla def dongo yu bari sawar ci sëriñ bi di leen tëralal. maam yi dem ba xam ne dong yii li ëpp ci ñoom sëñ bi tëralal leen lañ gën a taamu mu bàyyee leen sëriñ bi mu di leen tëralal seen i darsu ba tax na sëriñ bi mujj yor daanaka jàngukaayu xam-xam bi lépp dong yi ëpp di jàngee ci moom. bi nga xamee nag ne maam Mor Anta wàcc na liggéey sëñ bi dafa continuer yor daara ja di jàngale eh, ci diggante boobu nag taalif na ci ay téere yu bari leeralaat ko yoo xam ne dañ koo wesaroon mu ñëw def ko ay bayit ngir mu gën a neex moom gën a neex a jàpp. dana neex yooyu suñ dellusiwaatee danaa ci indi ay leeral ci téere yooyu incha allah jërë ngeen leen di fàtte di abonné di laal cloche de notification yi di partager vidéo yi tey like lu ci am am solo la ci.